134 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,88% et des cas positifs qui sont répartis comme suit. 104 contacts suivis par nos services. 30 cas de la transmission communautaire, répartis entre Touba 6 cas Popenguine parcel cas Parcelles Assainies 3 cas Guédiawaye 3 cas Malika 2 cas Keur Khadim 1 cas HLM Grand Benn Tali 1 cas Pikine Anne 1 cas Ouakam Dieuppeul un cas Kër Mbaye Fall un cas Rufisque un cas Thiès un cas Bounkiling un cas et enfin Mbacké un cas. patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. quinze cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4155 cas ont été déclarés positifs, dont 2276 guéris, 45 décédés et donc 1833 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. ma jàngal leen communiqué bés bi ci wolof di bésu tey ajuma jurómi fan ci weeru juin 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat examen virologique yi nga xam ne moom laa leen di waaja a limal ci junni ak juróom-ñaari téeméeri test yi ñu def téeméer ak fanweer ak ñeent ñoo ci positif maanaam téeméer ak ñeenti ka contact ak fanweeri cas communautaire juróom benn ci tuuba ñeent ci Popenguine ñett ci Parcelles Assainies ñett ci Guédiawaye ñaar ci Malika benn ci Cité Kër Xaadim benn ci HLM Grand benn ci Benn Tali benn ci pikin benn ci Hann benn ci wakam benn ci Jëppal benn ci Kër Mbay Fall benn ci Rufisque benn ci Thiès benn ci Bunkiling ak benn ci Mbacké téeméer ak fukk ak ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak juróom ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des ñu ngi tane ci bésu tey dale ko ci cas bi senegal njëkk a am waññi nañu ñeenti junni ak téeméer ak juróom fukk ak juróomi cas yoo xam ne testé nañ leen positif ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn wër nañ ci ñeent fukk ak juróom ñàkk ci seen bakken mu des junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak ñett ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu teg digle yi nga xam ne moom lañ leen di jox bés bu nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam